asalaamaaleykum suñu mbokk internet yi dal leen ak jàmm ci seen toute nouvelle chaîne Dak Médina point com Dak Médina point com nag chaîne bu bees la boo xamante ni nii dañ leen ko indil muy dox ci lépp lu jëm ci wàllu sport culture social ak politique ak yeneen yoo xamante ni nii dinañ leen mën a jariñ Dak Médina point comme ñu ngi leen di promettre du lourd dinañ leen indil ay invités yoo xamante ni nii ñëpp ñu ngi leen di xaar ñu yëngu ci wàllu politique wàllu culture wàllu sport ak wàllu série télé réalité suñu slogan mooy par l'image d'Agmedina, la télé qui éveille et qui vous suit partout où vous êtes Nous ngi leen di wax ngeen daw visiter suñu chaîne YouTube abonné ci bu leen faire aussi bés cloche de notification bi nga xamante ni moom moo leen di permettre di am information fu mënti